mbokk yi nga xamante ni ñooy seetaan Baye TV ñu ngi fi buntu garage bu Kaffrine muy waa Kopa yi ñoo génn ni wa kër yaa ami Baye ñu ngi nii di jëli imam Cheikh Tidiane Ali Cissé fi nga xamante ni mooy sorti Kaffrine bi ñu ngi ni foofu ñu ngi Baye Willane Baye ñii wa waa Kopa waa kër yaa ami Baye ngi waaw macha allah. waa Baye Willane TV ñu ngi fi nga xamante ni mooy Coppé ci garage bi ñii nag ñooy waa Coppé ñoo génn ni ngir tertu ki nga xamante ni mooy Imam Aliou Cissé ngi ne ak benn taalibe boo xam ne tey nan nga xamante ni mooy tertu bi ñuy tertu Imam Aliou Cissé. waaw macha allah tertu bi neex na euh, taalibe yi génn nañ mobilisation am na wax dëgg fa yàlla fàttali nañ ñu li nga xamante ne mosuñ ko fàtte muy suñ góor gu tedd gi ki nga xamante ne moom moo ñu xamal won ñu tette ñu teg ñu ci yoon bi nga xamante ne moom la macha allah fu mu toll nii moom ñëpp a ngi fi mag ndaw taalibe ñëpp a ngi ñëw fii taxawaay bu tertu suñ suñ sëriñ suñ sëriñ bu tedd bi macha allah. kon daal mën nañ jàpp daal fii moom lépp normal. waaw fii moom lépp macha allah fu mu toll nii neex na lépp. ay ay kon lépp baax. baax a baax a baax am jàmm bu baax. tey ñu gis na tey ñëpp génn nañ ngir teetu ki nga xamante ni mooy sa sa sa ganu waajur bi nga xamante ni moom la ñu fi bàyyee muy imam Cheikh Aliou Cissé tey ban mbégte nga am waaw kontaan bu baax a baax a baax di ñaan yàlla rek ñu teeru ko si jaamu gan gi waaw ñu def ko si jaamu jeex si jaamu si bekk moo naa adu baraam kontaan nañ baax a baax a baax daal ñu ko baax a waaw salaamaaleykum mbokk yi seetaan Baye Willane TV ñu ngi fi nga xamante ni mooy Kër baabu ngir teertu ki nga xamante ni mooy Imam Cheikh Aliou Tidiane Cissé mu ngi nii nga xamante ni léegi tey mu yegg si ndax oto yaa ngi ñëw benn benn benn oto yaa ngi nii di ñëw ñu ngi fii Kër baabu nag. Eh, Ndiaye Ndiaye. asalaamaaleykum beneen yoon mbokk téléspectateurs yi seetaan Baye Willane TV comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi fi nga xamante ni mooy kër ba kër baabu di teertu ki nga xam mooy sunu sëriñ imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ñu taxawoon nag sunu sëriñ bi ñu war ko laaj kàddu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu baax. maa ngi leen di fay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gis ne tey ñu ngi fi Kër baa mbooloo mu fasantikoo ñu ngi fi tey mbooloo mu takk ngir tertu ki nga xam ne mooy imam muy imam Cheikh naam ñu ngi tertu imaamu Medina Baye muy al imaamil akbar Seydi Cheikh Tidiane Aliou Cissé nga xam ne mooy ilimaani raati bi Medina Baye bi nga xam ne aalam bi yëpp kenn du laajte fan mooy Medina Baye waaye aalam bi yëpp kenn du laajte tamit kan mooy imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé nga xam ne. suñuy tànn borom xam-xam yi ci àddina Cheikh Baye Ëwël premier ngan gi xam ne moom la njëkk invité Cheikh Tidiane yi al imaamul akbar mu ñëw foog mu rëy ci ñun ndax histoire la ndax war na rëy ndax Cheikh Abdou Barham daf ñu fi bàyyee ay turaas yu bari ba pare dem yooyu dafa war a rafet njëlbeen bi rek mooy jotaay bii tey mooy défier lépp ci la ñuy xamee tey ndukkumaan ndax li leen Cheikh Abdou Barham bàyyee ñu ngi ko téye ndax ñu ngi ko fonk ndax ñu ngi ko bëgg wala déet tey la ñuy tey mooy examen bi ci la ñuy xamee Cheikh Abdou Barham kan la woon tey la ñuy xam lan la def ci ñun tey la ñuy xam ñun nan lañ ko téyee ndax li Oustaz Babacar wax ne Cheikh Macky moo ko wax ne Cheikh Abdou Barham lim fi ba jaaxalu ko ñim fi bàyyi ñoo ko jaaxal tey lay leer moo tax tey nekk jour boo xam ne jour bu mag a mag la ci ñun bu doon eed la tey mooy tëbaski ci ñun ndax danañ ci am yàlla waaye dinañ xam suñ dal suñ dayoo fan la toll te imaam Cheikh Tidiane yi tey su ñëwee ci dëkk bi fekk fi mbooloo mii ak ruuxu yi ak xol yi ko bëgg dana xam ne Cheikh Abdou Barham jogu fi dafa tasaaroo ci xol yëpp. waaw asalaamaaleykum waa Baye Wilane TV ñu ngi nii nag fii ci kër Babou toog ak sunu sëriñ muy Baye Talla Sëtu bu nguy képp koo xam rek xam ne jàmbaar la ci li nga xamante ni mooy euh, pays Baye Baye Abdou Barham mi nga xamante ni tey moom moom moo fi nekk bagum taalibe kon du ñu def lu lañ koy nuyu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum salaam wa waaw ñu ngi sant yàlla bu baax da wax ne bés bii tey bés bu màgg la ci lislaam bés bu màgg la it ci tarixa waaye bés bu màgg la ci kat Maulana Cheikhul lislaam ndax imaam yi imaam yi mooy ganesi si Cheikh Abdou te yàgg koy def ba mu génn àdduna bàyyi fi doomam Cheikh Baye Ewal ñu continuer kóolare googu nga xam ne kóllëre la gu yàgg da kóllëre ak soppeek soppe ñu dikk nag fii ci kër baabu da ko teertu waaye wax ne ñu léegi ne tànt ba fees na ba yaakaaru nit ñi buñ demee daañ am fuñ ne mën na leen nag nu mu gën a feesee baax na ndax ki ñee teeru ak ki koy teeru ñoo tax wasalaam jërëjëf daa mel ni mu ngi nii di ñëw imaam mi ngi nii di ñëw imaam imaam xamante ni mooy Medina Baye Kaffrine mu ne imam ngi ni di ñew cortège baa ngi ni motar mi ngi ci kanam motar police baa ngi ci kanam mom moko jele kaw rek indi ko nga xamanteni moy mooy kàddu ko man moto ya a ngi nii dem moto yëpp a ngi ni waaw imam Cheikh Tidiane ali Cissé mi ngi nuyo nit ñi imam Cheikh Tidiane ali Cissé mi ngi nuyoo tay ñu leen di ñaanal yalla li Cheikh Abdou Baram doon wax naan kep ko gis sa aajo faju kon yéen ñëpp bu ngeen gisee imaam rek seen aajo fayu mu ngi nii moo nekk ci oto oto bu noir bi oto bu noir bi la nekk imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé moo ne ci biir oto bi imaam mi ngi ci oto bi imaam imaam mi ngi ci mi ngi nii ay wàññil wàññil wàññil waaw kay. oto baa noonu ñu romb bu noir bi. bu ngay defee waaw. ci la Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé dugg. Gambie ñëpp génn waaw kay Oustaz ak station bu Gambie bi. rek. Imam mu ngi di moo topp suñu ginnaaw juste. ndànk Imam yow moo topp sa kaw Imam moo topp sa kaw ndànk rek. ko jiital ko bu ko mooy bu ko mu ngi nii ci wàññil yaa ngi raw combat bi yaa ngi koy raw. waaw jaajëf kon ñu nga xam ne ñu ngi ànd ak oto yi oto yi moom bokkoon na ko. waaw waaw weesu na ko oto yi moom bokkoon na ko. waaw ñoo ko jëlee ba taw lañ. ndax ñoom ñoo ko jëlee ba taw lañ. indi ko bi nga xamante ni mooy Gambie. kon Sima mu ci station di dem imaam de imaam boo ne nii dugg si Kaffrine mu ngi nii ci ñu ngi toll ci station Total bi ñëpp génn nañ. Kaffrine ñëpp génn nañ. ngir def imaam imaam yi nii ngay seen moo nekk ci oto bu noir bi nii 04 double 05 bi kaw lañ waaw. lii Cheikh Abdou Baram doon wax naan ñëpp ci imaam rek te aajo faju kon yéen ñëpp imaam a ngi nii. Eh, bu ko may day liggéey de. waaw bu ko may de. day liggéey de liggéey de. waaw waaw. demal demal demal demal demal. mu ngi sol manteau bu noir bi. imam man doomu noir la sol teg ci ay meer imam mi ngi nii waaye mbooloo bi lépp mi ngi nii taxaw ànd tamit ak moto yi ñu ci topp ñu topp la imam des imam imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé allahu akbar allahu akbar allahu akbar wàññil waaw kay wàññil rek aja waaw bësal aja demal ndànk ndànk mbooloo bi lépp génn nañ ndànk rek ndànk rek Ibrahima ngi nii ci الله اكبر kon tey xel dal na nit jëm ni Cheikh Abdou Bara mi ngi fii toog ndax nii la ko daal defee chaque année Cheikh Baye awal ñëw defaat lépp kon jurru baa ngi fii dugg baan jëm ni Cheikh awal jëm ni Cheikh Abdou Bara mi ngi fii toog Cheikh Abdou Bara